Je vous remercie. Je commencerai par vous féliciter, Madame le ministre, pour votre nomination à la tête du département de l'économie numérique et des télécommunications. Ensuite, je vous exprime mes voeux sincères de réussite dans votre haute mission. Je vous souhaite, Madame le ministre, la bienvenue, ainsi qu'à vos collaborateurs. Vous avez en charge, Madame le ministre, un département et stratégique qui constitue un levier fondamental du plan Sénégal émergent. Madame la ministre, nous avons la commission des finances nous avons tous les problème qui yenn institution yi conseil départemental qui intranet Nous avons utilisé l'intranet mais depuis un an nous avons ni programme bu nga xamante ne yéen koy mettre en place ak ADE may laaj fu mu toll ndax euh, intranet bi doon nañu jàppale bu baax ci sunu liggéey madame le ministre may wax ci collectivités locales yi muy antenne yi nga xamante ne Sonatel daf ko mettre ci yenn collectivités locales yi mu am redevance yu mu war a fay te ñu gis ni wax dëgg yàlla moom ku ko fayul mu coupé la te gis nañ ni mi ngi jël espace su jàmbur def fa ay antenne am te du fay te bu doon fay loolu dana arrangé collectivité yooyu ma wax nag monsieur ministre mi ngi bëgg a yàgg nag pour nga taxaw ci am luy dugg ci collectivité locale yooyu madame le ministre dafa am benn dëkk bu am solo ci département Louga ñu koy wax Ngermalal mi ngi nekk Ngermalal benn dëkk bu ñuy wax Guy dëkk bu mag la boo xam ni mën naa ni dëkk ba yëpp ay immigré lañu bari nañ ñoo xam ni ñu ngi ci àll bi te guy mbët mi ngi ci diggante Louga ak Kër Momar Sarr guy mbët ngay jëkk a jot te mënuñu am réseau mënuñu am dara ñu jaxle ñoom pare nañu sax pour xool naka lañu mën a def même bu dee fay ñu def ko pour ñu mën a am réseau moo leen gën lu ñu mën a am ñu nit conseil départemental pare nañu pour gunge leen madame la ministre loolu nag ma ñaan nga jàpp jàppaleñ ci ba ñoom ñu am solution ndax doomu dëkk ba ñëpp ñu ngi bitim réew te franchement lii daal mooy seen bëgg-bëgg ma bëgg madame la ministre nga jàpp ci bu baax je vous remercie